wa barakaatu di dellusiwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow ci waxtaan yi yëpp passé ci mu kaffiraatu dunub yooya waxoon naa la ci ñetti jotaay tey war cee nekk suñu ñeenteeli jotaay xam naa sax ci tey laa koy tënk mu yem ci ci kafaara bàkkaar yi yi kafaara bàkkaar bokk na ci julli ajuma fonk ajjuma di ko julli ji ca ya soo ko defee loo def ci bàkkaar ba bay ajjuma ji del siwaat lépp yàlla dafa la koy jéggal te loolu yonentu bi wax na ko sallallahu alayhi wa sallama aljumuata ila aljumua kafaratun lima baynahuma ne juma ba ajuma li fi dox ci bàkkaar yépp yàlla dafa la koy jéggal kon nañu góor góorlu di julli ji ajuma tey teel a dem ndax saa yoo xamee ne ajuma jot na rekk malaaka yi dañuy taxaw ci bunt yi jumaa ji yore seeni karna ku ñëw rekk ñi bind la ñi njëkk ñëw ci waxtu wu njëkk wa ñu bind leen ñaam am yoolab ku jaamoo yàlla gëléem ñu waxtu ñaareel wa nag waxtu ñetteel wa gàtt ci xar ak bëy bu ñeenteel ba ganaar bu juróomeel ba nen nen nag mooy iliment na ngay xutba wala muy taxawal loolu nag daanaka commerçant yi moom la ñuy xam te wax dëgg yàlla bénéfice ab gëléem nuñ ko faa gañe buñ teeloon a dem ak lu ñu yéex a yéex a dem mënuñ ko faa gañee ci seen magasin ya kon commerçant yi dee leen teel a tëj di teel a dem ca jumaa ja waaye toog ba ne ndax taxawal nañ rek nga ñëw këpp-këppal ñaar rakkaa ya delluwaat dangay fekk malaaka ya lem seen karna ya duñ bindati ndax buy limaan xasee ñëw rek dootuñ bindati duñ bindati nag ñaar la ko borom xam-xam yi déggee ñu ne kon comme bindatuñ kenn ku ñëwati dootoo xam juma ñenn ñe ne ah buñ duñ duñ bindati rek waaye terewut ku ñëw tamit da nga am juma waaye duñ la bindati ci ñay am juma yu mat ya ñay am cent pour cent bokkatuloo ca ñay xam 80 pour cent bokkatuloo ca ñay xam 70 pour cent bokkatoo ca 60 pour cent bokkatoo ca cinquante pour cent sa bokkatoo ca waaye yaa ngay bokk ca ñay am 40 mbaa trente mbaa 10 mbaa vingt mbaa quinze pour cent xam nga loola nag dara jëru ko kon bu àjjuma jotatee tëj leen seen bitig yi tey dem ca jumaa ya soo xamee ngànta ba demoo tegal sa bitig bi ndax heure booba jaay fa xaram na jënd fa xaram na leb faak leble fa xaraam na saraxe faak saraxu fa yépp xaraam na luñ ca def nag ci jaay ak ak jàpp surgaak ya ca xaju yëpp dañ koy firi fuqaaw yi ñett rek lañ ca setti mooy sëy buñ takk takk fa sëy xaraam na waaye buñ ko xasee takk duñ ko firi maye fa xaraam na waaye buñ fa xasee maye duñ ko firi saraxe fa xaraam na waaye buñ fa xasee saraxee duñ ko firieti ndax yonentu dafa ne ku saraxe xan delluwaat ci dafa mel ni ku wàccu ba pare di ko lekkaat ab sëy tamit kóllëreeg yàlla la ba turee na ko miisaakan xaliisan kooka bëggut tamit lu dagg kóllëre googa moo tax buñ ko xasee fas bëgguñu tamit ñi di ko fecceti kon ajjuma ku ko julli ji ca jumaa ja ba àjjuma fekkaat la fi nga demaat lépp loo defoon ci bàkkaar ci diggante semaine bi yàlla jéggal na la ko bokk na ci kafaara bàkkaar sarax bu nëbbu nga xam sa alal ju lew yàlla rekk tax nga fàgg ko seet ku néew doole nga sarax ko ko te yàlla rekk tax te ndeyjoor ba sax lam joxe càmmooy ba xamu ko kooka yàlla da koy jéggal ay bàkkaaram waaye nag saraxe boo xam ne tiitaru rek waneexu rek yëkkati ba ñëpp gis ko tabaarakallaahu jigéen ñu bari bu gàmmu jotee da nga gis ñi dem di saraxe ji am na ke ñoo xam ne lam yañ takk sax lañ bëgg mu feeñ bañ koy joxe yaa nga gis nañu tàllalee seen loxo ya wane ne li ma takk sama loxo bi yëpp or la jigéen ñi dañoo bari fem tiitaru googa taxut ñiy wax kon la ngay saraxe na nga ca toroxlu la ngay saraxe tamit nga nëbbu ko te xam ne yow mënoon ngaa bokku ca ñay saraxu bala nday joor ba joxe sax càmmooy ba xamu ko te sarax bu nëbbu dana tax borom dana bokk ca juróom-ñaar ña ñenn ngeen ne juróom-ñaar fukk yi nga xam ne bu yowmal xiyaame yàlla dana leen keral ñaari riwaaye la fa am riwaaye bu ne juróom-ñaar yàlla dana leen keral bis bi ker xamut am ñu ne juróom-ñaar fukk am na beneen riwaay boo xam ne juróom-ñaar fukk la lim ñoo xam ne yàlla dana leen keral yudilluhum allahu taala bi dilli arshihi yowma la dilla illa dilluhu kon lii kafaara bàkkaar bokk na ci sarax bu nëbbu dana waral timit bu yowmal qiyaamee yàlla keral la fa ker amutoon te ñëpp soxla ko yi kafaara bàkkaar bokk na ci xoor weeru koor weeru koor jot nga xoor jublu ci fàggu yoolab yàlla kese tiitaruuloo ngistaluloo ca yonentoo ko wax ci xadis man saama ramadana imaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqaddama min zanbihi wa maa taaqara riwaaye yu ci bëri nag maa taqaddama min zanbihi moo ci gën a bëri waaye bii riwaaye moom indi na ko ne wa maa taaqara ñaar yëpp kon dañ la ko jéggal képp koo xam ne xoor nga weeru koor jublu ca fàggu yoolab yàlla gëm yàlla lal ko sa bàkkaar yu njëkk yaag yu mujj yëpp yàlla jegal na la ko riwaaye boobu loolu la wax yeneen riwaaye nag maa taqaddam moo ca nekk beneen bi ci tegu tamit naafila weeru koor guddi gi nga di ko dundal te yàlla rek tax dañ lay jéggal sa bàkkaar njëkk ya alqo hadis ba wax na ko man qaama ramadaana imaanan waxtisaaban xufira lahu maa taqaddama min dan bi bokk na ca tamit dundal laylatul qadri ku ko def ba guddi gi jeex nga koy jaamu yàlla ka jullee ka ñaana ka julli ci yonantu bi yàlla dina la jégal sa bàkkaar hadis bi wax na ko man qaama laylatal qadri imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma taaxara bokk na ci kafaara bàkkaar xaj guñ nangu képp ku xaji xaj guñ nangu dara duhut sa payoor lu dul aljana xaj guñ nangu nag mooy koo xam ne xajam ga beejut ca génn ca topp waxut ca lu bon ci lu jëf moo tax mu ne man xajja man xajjal bayta fa lam yarfus walam yafsuq xaraja min zunubihi ka yowmin waladathu ummuhu aw kama képp koo xam ne xaj nga sa xaj nga mboosóoroo ca defoo ca génn topp sàccoo jëwoo fenoo rambaajoo loroo ca doomu aadama yi mooy ca yàlla ba xaj ga jeex nga ñibbisi sa topp yàlla ga yokk sa mooy yàlla ya wàññeeku muy tekki ne sa xaj ga nangu nañ ko dara duwut sa payor lu dul aljana wax na ko alxajul mabruur laysa lahu jaza ilal janna yàlla nañu ko yàlla boole defal beneen bi tamit umra umra dem umra ji te umra xam nga lu gàtt la mën nañ koo def ci weer yépp moom lu dul jamono ji nga xam ne ngaa xarmal ci xaj rek ba sóobu ca moom la ñuy bañ comme defoo irdaaf mooy tofal xaj ci umra nga xam ne daa nekk xaarin kuy xam dafa xiraan walla dégg nga wala nga jiitaloon ko def tamatoo ngaa jiital umra ci xaj wala sax danga aj ba pare doora umra mooy ngaa def ifraat waxoon nañ ko bañ koy wax su ko defee kon umra googu nga def ko jublu ca jaamu yàlla kese yàlla dafa lay jéggal sa bakkaar ya jiitu woon bokk na ci yoo xam ne nag sax duhut jëf duhut wax waaye aas moo la ko may yaa daan jaamu yàlla ba nga nekkee ndaw ba ba ngay xamee juróom-benn fukki xat boo xasee xam juróom-benn fukki xat rek yàlla jéggal na la say bakkaar soo xasee xam juróom-ñetti fukki xat yàlla toppatul la dara dara do yàlla toppatul la ko loolu moo doon sekkareeb Cheikh na Tidiane doon ñaan. yow yàlla yàlla nga ma may ma dund juróom-ñetti fukki at loolu la ñaanoon yàlla may ko ma dund juróom-ñetti fukki at yu tegut benn fan tegut benn waxtu tegut benn minute tegut benn seconde ndax juróom-ñetti fukki at ku ca xas xegg yàlla toppatut la dara soo demee nag ba juróom-ñeent fukki at moom dangay mujj say ñaaw-ñaaw ya yàlla far soppil la ko lu rafet juróom-benn fukk nag boo ca tolloo yàlla jéggal sa bàkkaar yi jiitu woon yépp kon xam nga ni lii gudd fanay tax nga xegg ca moo tax kon gudd fan jar naa ñaan noo fi gën a yàggee te yàggee fi lu baax rek yàlla du la toppati dara bokk na ci kafaara bàkkaar jàngal xale yi téeréb yàlla bi wala nga lal darsu di jàngale sharia nit ñi di ko dégg di ca jariñu jàngale googu ngay jàngale alquran di ko jàngale xam-xam yàlla da cay dëgg jéggal sa bàkkaar yépp yàlla nañ ko yàlla defal bokk na ca fonk ñaan gu siiw gi ñu tuddee bu xisbu fii ñaan gu gudd la nag ku ko man di ko jàng ak bul xisbul nii boo demee ca rimaax bu Cheikh Omarul Fuuti yu mu ne ku taqoo xisbul baxri ak bul xisbul nii soo jëndee téere bu ñu tuddee ahsaabul awraat dana la indil ñaari ñaan yooyu yépp danga ko ca fekk mu ne su boobaa yàlla dafa lay jéggal sa bakkaar yépp comme fonk nga ñaan goog di ko ñaan bokk na ci ñaan gi yonantu bi waxoon muy yaa man azharal jamila mos nañ ko fee wax ku ko man di ko jàng yàlla dina la bindal yoolab benn yoon rek boo ko jàng yàlla bindal la yoolab ba mu bindee mbindee fam ak asamaanam si luñ ko jaamoo gum ci jinne ak ci malaaka ak ci ay ruuxaani yuuna ak ci ay njanaaw ak ay yent yent ak ay doomu aadama ba bi nga koy jàng mbooleem luñ ko mos a jaamul toll noona ba nga jàngee ñaan gi wenn yoon rek yàlla jox na la payoor bu toll noona Cheikh na Tijaan yi bëgg ñëpp dem aljana mu ne nag nañ koy jàng ñaar fukki yoon boo ci xamee ndigal bët bu set nga fexe ba jàng ko ñaar fukki yoon rek moom nag moo yaa xam ñaar fukki yoon noo ko defee moo xam julli koo julli ñeenti yoon la su boobaa ñaar fukki yi mat na moo xam suba fukk moo xam ngoon gi fukk moo xam boole def ñaar fukki yoon suba moo xam boole def ñaar fukki yoon ngoon ñaan gu xam a xam solo la yaa man azharal jamila wa sataral qabiha wa lam yuaxis bil jarirati wa lam yëhtaki sitra wa yaa azima al afwi wa yaa xasna tajawusi wa yaa wasia al maxfirati wa yaa baas lay deni bi rahmati wa yaa saamia kulli najwa wa yaa muntaha kulli shakwa wa yaa karima safi wa yaa azima al manni wa yaa muqila al azrati wa yaa mubtilian bi niami qabla istiqaaqiha wa yaa rabbi wa yaa sayidi wa yaa mawlaaya wa yaa gaayata rahbati asaluka allaa tusawiha xilxati balaay dunia wala bi azabi naar bi balaa i dunya wala bi bi naar ñaan googu ku ko wax yàlla jéggala say bàkkaar boo ko waxee tamit ba yàlla commencé bind lu koy jaamu ba fi nga koy waxee lu toll noona lépp yàlla bindal na la ko ci yool bu toll noona kon ñaan gu am solo la yonentoo ko fi waxoon mu yàgg fi lool ku ko wax rek yàgg ñëpp ci xam soo ca bëggee nag di ko def par ñaar fukk da ngay dem ci ku xam ndigal mu jox la ko nga di ko jàngee noona waaye ñaan la goo xam ne yonantoo ko waxoon bàyyi ko fi mu jiitu fi lépp nag su ko defee Cheikh na Tijaan ni ñëw gis yool bi mu xam ak rëy ga ba yonantu bi jox ko ca ndigal ak ca jaar su ko defee nag léegi ñi di ko def ñaar fukk ca ndigal ya moo tax maam xalifa wax na ko sax alaysa fi xasaa'isil asmaa yi amalu ahlil ardi wa samaa yi te loolu ba mu koy wax ma ngi cay junji yaa man alxalal jamila jooja boo demee ci téere Sëriñ Tuubaa yi Xaadimu Rasuul da nga ko ci fekk boo dem ci maam alaaji Malick moom sax da koo far way dafa jël loola way ko def ko ay abyaat muy yaaman azhara al jamila wa satara al qabiha walam yu axis bil jarirati walam yëxtaki sitra ba ñaan nga jeex ñi di ko tëjee wasifa wa muy lu ama am solo naka noonu tamit euh, musabaatul ashri junjoon naa la ko koy taqoo di ko jàng dañ la jéggal say bakkaar musabaatul ashri nag fukki yëf la yoo xam ne yëppam dañ koy juróom-ñaaral fatiha ka jiitu woon juróom-ñaari yoon nga jàng suratu naasi juróom-ñaar falaqi juróom-ñaar qul walaahu juróom-ñaar qul yal kaafiruna juróom-ñaar ayatul kursi juróom-ñaar subhanallah walhamdulilah wala ilaha illa akbar wala hawla wala mil ama alima wa adda ma alima sanata juróom-ñaar demeet nun nga koy toppee ba juróom-ñaar juróom-ñaar mat mat fukk nga di ko def suba ak ngoon yàlla jéggal la sa bàkkaar yépp kon yuy jéggale bàkkaar a ngoog bëri na bokk na ca sax tabaarakallaahu jàng suratu yaasin jublu ca yoolab yàlla kese ndax yaasin mooy xolab alquran bu ñu mooy xolab alquran nag yaasin luy tere newu ci luy digle newu ci léppam rek lu war a fas la te xol mooy fas moo tax ñu tuddee ko xolab alquran lu ñuy war a gëm rek moo ci ne di ko fas ci xol bokk na ci ñi jéggale bàkkaar eh, xommat gumba koo xam ne bëtam ya dafa muuru nga xommat ko lu mat ñeen fukki jéego xam nga loolu yomb na nag yàlla jéggale sa bàkkaar yu njëkk yëpp loola xam nga baax na bokk na ci jéggale bàkkaar fajal sox jullit ñi seen soxla nit ki xam xitte am soxla lool nga taxaw ca di ko dimbalee ba soxla sa faju wala anga kay fajuwut waaye la nga ca manoon yow def nga ko taxaw googu nga taxawee rek di ko ca jàppale faju naam fajuwut yépp yàlla ci mbaaxam ak ci yërmandeem dafa cay dëgg jéggale say bàkkaar moo tax fajal jullit ñi seen soxla tàbbal mbégte ci xolu jullit ñi bokk da ci jaamu yàlla gu gën a mag soo bekkee nit ku baax bul tànkam lu soxlaay kenn soxla du tuuti ca borom ku la wax soxla loo ca man def ko ca te yàlla rekk tax bu laajee làmb sa poos def ko bu laajee jug ànd ak moom di waxaka ba mu sotti defal bu laajee hiig bu laajee boole kook nit ci relation defal te yàlla rekk tax soo ko defee yàlla jéggal la say bàkkaar naka noonu tamit ñaari jullit ñu dajee nuyoo xante kenn ku ne wax sa morom ni asalaamualeykum mu ne la wa aleykum salaam nga jël sa loxo bi jox ko ki ngeen mu saafu xante su ngeen ko manee bala ngeen a teqalikoo ngeen julli ci sayduna muhammad allahuma salli ala sayyidina wa sallim moom tamit mu wax ko su boobaa yàlla boole jéggal leen seeni bàkkaar yi moo tax koo mënati boo ko nuyoo rek julil ci yonantu bi loola lu xam-xam njariñ la euh, boo ko defee yàlla jéggal la say bàkkaar kon yi jéggalee bàkkaar bëri na euh, nañ ci sonn tabaarakallaahu tamit nañ ko sonnee te xam ne bàkkaar dafa bëri ci jile jamono lu ci waay man nga dégg ne boo ko defee ñu jéggale say bàkkaar bu ko bu ko bu ko tànkam lu sonn ca bu baax a baax a baax a baax loo ca man tamit nga def ko kon loolu am na solo bokk na ci jéggale bàkkaar sax euh, ñaan gu siiw gi yonentu bi bàyyi fi sallallahu alayhi wa nga xam ne mu ne sax moom lay malaaka yi di jaamoo yàlla euh, foog nga wax rek ne subuhun quddusun rabbul malaaykati wa ruux kooku ku ko wax ñetti yoon yàlla jégal sa bàkkaar soo ko manee nag timit sax boo sujjootee man nga koo wax ci sa sujjoot ba waaye fekk mu fi la nga wax ko lu mat juróom-ñaar fukki yoon door a sa bopp bi yàlla jégal sa bàkkaar bokk na ci timit ñaan gi rabbi fir warham wata jaawas amma taalamu fa innaka anta al azizul azam nga di ko wax juróom-ñaar fukki yoon yàlla jéggal la say euh, bàkkaar su ko defee suratul qadri fonk ko di ko jàng mu inaan sama fitil qadri ñetti yoon xul walaaw axat fukki yoon ak ñaar jublu ca jaamu yàlla moom tamit baax na lool yàlla jéggal say bàkkaar ngay julli salaatul ummi bi allahumma salli ala sayyidina muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa moom tamit bari loo koy jàng dana tax yàlla jéggal la say bàkkaar euh, su ko defee kon mu kaf mu mu kafaraatu zunub daal lu baree bëree bari la xam naa dama cee jukkeegum yooyu di la déglu am na benn téere bu ngi tuddee naylul awtaar euh, téere bu baax a baax la soo ca demee dana la limal yu bëree baree baree bari yoo xam ne su ko jullit bi taqooxee dana la ci yàlla dana la ci jéggal say bakkaar moom borom téere boobu sax lam ca tudd man jàpp naa ne xëpp na juróom-ñaar fukki yëf yoo xamee ne ni benn bu ci nekk boo ko defee yàlla jéggal sa bàkkaar te moom tamit yem tudd sax mooy yu yomb ya ngir bëgg ñëpp dem aljaana moom tamit borom yërmande ju rëy la ndax nit ñi nag dëgg-dëgg daal euh, yéene leen lu baax loo am am solo la jaame yàlla yi ku leen yéene lu baax suñ ko xamee nga xam ko suñ ko xamut nga xam ko ku leen xéene safaan ba buñ ko xamee buñ ci yow danga nga ko xam buñ ko xamut tamit yow da nga ko xam moo tax yéene daal lu rëy rëy la yàlla na yàlla boole defal ñu jàmm yàlla boole defal ñu sutura yàlla boole defal ñu nataange boole defal ñu xéewal yàlla xiir ñu ci boppam musal ñu ci mbooleem musiba yi musal ñu ci mbooleem balaa yi dàqal ñu xayu luy wax ak luy waaxook luy darngook luy watatu ak luy yëngatu ci diggante asamaan ak suuf di aw xay yal nañ ci yàlla boole musal lépp lu ciy xiiw yal na yàlla boole tàggat ko jox ñu ko yàlla boole defal ñu njaboot gu baax gu bari gu barke guy taxawee diine ji te lépp timit yàlla gërëm ko yàlla boole musal ñu ci bakkan musal ñu ci ngistal musal ñu ci ndéggital musal ñu ci mbooleem xeeti jàngoro yi nga xam ne dafay lor doomu aadama yàlla yokk suñu sëriñ yu tedd yi ay leer di ay maami leer yoo xam ne ku leen sut tànk ñi sut laa liwa mën ngaa dem fu ñu demut waaye boo ñëwee ñi wax la fa loo xamut ñu mel nii Seydil Hajji Malik ku mel nii xaadimu rasul si Ahmad Bamba ku mel nii Mawlaaya Xaaji Abdallah ku mel ni si Omarul Fuuti ku mel ni si Abdul Xaadir Jaylaani yi ku mel ni tabaarakallaahu maam imaamu ku mel ni tabaarakallaahu Abdul Xaadir Jaylaani ak maam Amari Ngoone Ndaak góor yàlla yu tedd yooya ak lépp lu soqeekoo ci seeni njaboot tabaraka tabaarakallaahu nga xam ne yàgg nañoo taxawee diine ji sagal ko di ko sigil taxawee ko côté bu nekk ba tax tey fu nekk nit man faa taxaw di noddu man faa taxaw di liqaam man faa toog di jàng alquran yow mi ko tal da nga koo war a santee ña ko talutoon bay loola di xam boo defee ko nit ku nekk dafa war a fàttaliku démbam ngir mu mën a liggéey tayam pour ëllëgam mën a jàkk waaye nit ku amul démb doo am tey ku amul tey doo am histoire ëllëg kon suñ mag ngi ñooy suñu démb muy ñoo xam ne ku leen fàttaliku jël sa tànk teg ko fañ ko tegoon fañ yeggoon moom kenn mënu faa yegg ci ji jamono waaye loo ci xam rek baax na su boobaa yàlla mën na laa dimbale ci mbaaxam gi ak ci yërmandeem ju yaatu ji nga xam ne lépp xaj na ci boroom kër gi di siidi Mouhamadul Amin yàlla na ko yàlla dolli tiraanga yàlla dolli ko kaaraange yàlla dolli ko jàmm dolli ko sutura lépp luñ àddu ci rajo bi ngeen di dégg muy aw hiw yàlla bu ko ci kenn ëppale kon ñu ngi ko koy ñaanal di ko ñaanal mbooleem kilifay diine yi di ko ñaanal personnel bi nga xam ne ñoo ko jàppale ci liggéey bi ba mu mel nii yàlla mën a dimbale yàlla na yàlla dimbale ko dimbale ñu yàlla mën a taxawu yàlla yàlla taxawu ko taxawuñu ñu yokk ko te yokk barkeel ko te barkeel ñu taxawu lépp xiir ñu taxaar ñu jàmmal ñu te suturaal ñu mosal ñu te musal ñu yàlla mën na ko yàlla de ko yàlla def barke sayyidina wa salaam wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi alladi an'ama ala albashariyati walbashar bi bi'athati sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ila xayri ummatin uxrijat linnaas wa bi xayri kitaabin yahdi lilati hiya aqwam summa salaatu wasalaamu alayhi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 fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi maa ngi leen nuyu nuyoo bi gën a tedd muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bi maa ngi koy jagleel suñu mbokk yi nekk ci seliri prison yi di place boo xam ne jombut kenn ku ñu tooñ ma nga fa ki tooñ timit ma nga fa di place boo xamee ne nii feeg sa dund gi jeexagut rekk bu ko jombalee sa bopp ndax dogalu yàlla yi mën naa ñëwee nu ne ña fa nekk timit bu leen xas bu leen bañ jàppal ne dogalab yàlla moo leen fa indi mën naa am dañoo tooñ mën naa am timit dañu leen a tooñ su boobaa nag ñu tooñ ak ñu tooñ yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla génne leen ci xat-xat boobaa te buñ ca génnee yàlla buñ ca duggati yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def comme ni ñuy joxe nuyoo bi suñu mbokk yu tedd yi nekk ci hôpitaux yi seen yaram sutante ñii ndeysaanam ñu ngi leen di entré mënatuñ dara ku leen gisati yaa leen fekki ñi bàyyi seeni njaboot ca kër ga ñi bàyyi seeni njaboot ca bitim réew ñii wàññi nañ seeni tànk ñii dindi nañ seeni bët ñii xar nañ seeni biir ñii ña ca lal ya ndeysaanam nekk ca mat waak li ci aju ñoo ñëpp yàlla na yàlla saafara leen bismihi shaafi saafara goo xam ne dana ànd ak dund xoyofal métit wi nekk ca ñoom bañ delluwaat ca seen njaboot di leen wéttalee di leen wéttalee ba ca kanam a kanam a kanam ñi feebar tamit te mënuñoo dem hôpital sax ña ngi ca kër ya tamit yal na yàlla saafara leen ñi nga xam ne tamit mënuñoo toog ca kër ya ndax xam nañ ne suñu tëddee tamit du tax kër gi tëdd lépp ñoom la war ñoom tamit yal na yàlla saafara seen yaram ya te saafare waale seen poos ya ndax léeg-léeg ni nekk ci ndeysaanam feebar na bu yàgg jékki-jékki rek génn àdduna ku nekk naan xanaa feebaru toon ñu ne moom kay pourtant tëddut ko de fekk feebar na bu yàgg fa mënutoon a tëdd rek ndax am na koo xam ne bu tëddee timit këram gi du tëdd kooka bu tëddee coono lay jur moo tax boroom kër yooyee toujours ñuy kër kër yi yal na yàlla xettali leen xettali goo xam ne dana kawe seen njortu may leen lu ñu gàññi te may leen lu ne nàññi yàlla man na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def may ñëw nag di sof ak yow li ma sosoon ak yow waxoon naa la yi kafaara bàkkaar damay njëkk ak yow yu ñuy jëf ya mujj ak yow yu ñuy wax ya yu ñuy jëf ya bi ci jiitu mooy njàpp lu mat sëkk njàpp loo xam ne bi nga commencé raxas loxo ya fexe nga ba roxole mat sëkk loxo bu ne nga góor góorgóorlu ba raxas ko ñetti yoon ba nga ca bàyyee koo ndiku nga ba mat sëkk nga sorox ndiku sëlmu topp xóot-xóot yaag bët yaag sukk bakkan baag wàll ngaam yaag li ci haju yépp mat na sëkk nga raxas loxo ba ba ca conc la dugalaale ko xalilaale say baaraam ba nga koy raxas ci ngay loole xalil baaraam ya baaraam bu ne nga dugal ca moroomam baaraamam mu xàjj ko ndeyjoor ba ak càmmooy ba ba nga paree laalale sa loxo bi le ndox masaa bopp ba dem nga ak dikk ba yépp koro koro say nopp gannaaw bi nga laalaatee ndox dooro raxas tànk ya ba ca dajoor ya ca ndeyjoor ji ba ak càmmooy ba mu mat sëkk boole kook set njàpp lu mel nii ku ko jàppee yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam na jéggal nañ la say bàkkaar ya lii ñi ngi ko jëlee ci Usmaan ibnu Affaan moom lañ solo benn bis moo taxaw walla moo toog mu ne indi leen ma ndox ñu indi mu raxas loxo ya ñett yoon galax ndiku ñetti yoon sorox ndiku ñetti yoon sël mu ñetti yoon raxas loxom ndeyjoor ba ca cooncu ñett càmmooy ba noonu muy ñett mu masaa bopp ba koro koro nopp ya door raxas ñaari tànk ya ba ca dajoor ya booba sax moom tànk bu ne ñetti yoon la ko raxas bam ca noppee ko mu wax ne raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawaddaa wudu'i summa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man tawaddaa naxwa wudu'i summa qaama fa nafsuhu gufira lahu ma taqaddama min danbi Umar ibnu Xataab bi mu jàppee njàpp lu sell nii ci la wax ne yonantu bi de gis naa ko mu jàppee comme nii ma jàppee ba jàppee ba pare mu wax ne képp ku jàpp njàpp lu mel nii nga góor-góorlu ba nga paree julli ñaari rakkaa sa bàkkaar yi nga amoon yëpp ci jiitu woon ya nga defoon waxuma yi nga defa gudde waaye yi nga defoon yëpp yu njëkk ya moo xam yu mag ya moo xam yu ndaw ya la moo xam bàkkaaru bët la nopp la bàkkaaru biir la tànk la awra la làmmeñ la yooyu yëpp yàlla boole na jéggal la ko moo tax kon yi kafaara bàkkaar li ci jiitu yëpp mooy njàpp lu mat moo tax njàpp kenn du ko profitooyee njàpp kenn du ko parax-paraxee danga nga ciy ànd ak teey da nga ciy ànd ak dal ndox mi ngay jàppee nga xool ko ba xam caf nga ga ak xet ga ak couleur ba ndax dara soppiwut ko su soppee ko te li ko soppi moom moom dëkkuñu tamu laab mënut mën mën mënuñ koo jëfandikoo ci jaamu yàlla waaye mën nañ koo jëfandikoo ci aada la ko soppi nag su fekkee laabut ndox ma mënut dara tuuri rek la man la ko soppi bu laabee te moom ndox ma ñi dëkk su boobaa dara nekku ca mën nañ caa jàpp mën nañ caa sangu kon ndox nii rek lañ koy lañ koy defandiroo moo tax bañ laajee Cheikh ndox mooy lan ndox mu mën a laab mooy lan mu ne maa saduqa ismu maayin bila qaydin mu ne lépp loo xam ne bañ la laajee loo yore nga ne ndox rek ndox mooma moo man lépp waaye boo ne ndoxam rek mën a tut ndoxam suukar ndoxam kafe ndoxam dawlin ndox mu am bineegar waaye saa yoo ne ndox rek tënk ko ca noppi mooma ndox man na waaye saa yoo tinkee ndox ma rek ndox ma mën a tut moo tax mu ne ma sadduqa ismu ma in bila qaydin kon bala ngaa jàpp mbaa ngay sangu janaba na nga vérifier ndox ma bu baax a baax a baax ba nga xam ne xet ga ndox rekk lay xeeñ couleur ba couleuru ndox rek la yore waaye tamit caf nga ga caf nga ndox rekk lay saf nga door caa mën a sangu door caa mën a jàpp xool ndox maa tax sax ñu ne la raxasal loxo nga tibb ko sa loxo bi xool nga ko ñu ne la waaw léegi euh, sorox ne maanaam galax ndikul nga mosaale ko ca sorox ndikul nga door a fóon ko yooyu yëpp préparation la ndax yooyu yëpp dara du ca farata gannaaw bi nga xamee ñett yi ca raxas loxo ba nga xamee couleur ba sa galax ndiku ga nga xamee caf nga ga ca sorox ga nga xamee maanaam timit euh, xet ga nga door a nag bu la doyee nga doora sëlmu nag yéenee foofa njàpp booy yéenee nag ñett yi loo baax na yéene naa def luñ farataal ci sa xol boo ko waxee doy na yéene naa yëkkatim toj yéene naa sàkkoo dagana luñ ma tere woon ndax yéene naa def farata njàpp farata la yaay yaa ayyuhaa llaziina aamanu izaa qumtum ila salaati faghsilu wujuuhakum wa aydiyakum ila marafiqi moo tax boo ne yéene naa def farata rek xem ca baax na soo ne yéene naa tamit yëkkatim toj ndax toj ñaari xaaj la dafa am lu ñu tuddee xadasul akbar ak xadasul asxar xadasul akbar nag mooy lu laaj sangum janaba buñ ne xadasul askar nag mooy loo xam ne laajut sangu jàpp rek la laaj soo amee ngàntal jàpp nga tiim lii mooy xadasul asxar moo tax kon bu la neexee nga xéene ne xéene naa yëkkatim toj bu la neexee tamit nga xéene ne xéene naa sàkkoo dagana luñ tere woon ndax ku jull ku jàpput tere nañ la nga julli lu la tax na nga mën a julli ba sa jàpp sa julli nga mën a jàpp mooy njàpp su boobaa boo ca xéenee sàkkoo daganal luñ tere woon su boobaa maanaam ñett yi loo ca xéene ci njàpp man na boo ko yéene ci sa xol rek doy na nag boo ko waxee nag dëgg-dëgg def nga bidaa ndax yonent bi dund na ba génn àdduna mos ta yéene ba koy wax dund na ba génn àdduna ay saxaabaam mosuñoo yéene ba wax ko ndax jaamu yàlla yi dañ koo séddale cër yi dafa am lu làmmiñ moom am lu xol moom am lu loxo moom am lu tànk moom tànk rolam mooy dox rek jëm ci bépp yiw jëm ci jàkka seeti ko feebar dañ dem teewee ji ku génn àdduna dem jokki say bokk siyaara ji nit ku baax lu mel noonu demeet mooy rolu tànk foo toll de ko ca dox moo tax sëñ Masamba daana wax ne man a dox baax na de waaye dox jëm ci lu baax a baax waaye saa yoo manee dox ba tax ngay dox jëm ci lu doxuwut bis boo demee ba yàlla xeeñ la dox danga nga réccu doon doxee ca loola su ko defee tamit euh, sa làmmiñ wile rolam mooy jàngal quran jéggalu yàlla julli ci yonantu bi demeet sa xol bi nag mooy teewlu jëf ja comme xol lim moom bariwut mooy yéene rek ak teewlu waaw làmmeñ lim xam ni mu bëree soo bëggee jël la xol moom nga bëgg koo jox làmmeñ da nga mujj tooñ xol ndax lim am le bëriwut benn rek la xam mbaa ñaar soo ko ko xeñee tooñ nga ko waaye boo bokkee ci ñi nga xam ne lu ñu yéene yéene ci seen xol feeg waxuñu ko ci seen làmmeñ dañu jàpp ne yéene wuñ su boobaa Cheikh Khalil nee na wala fuhu waasi'un baatal ga dagan na waxut na nag waajib la waxut ne sunna la waaye nag. waasix la wax dagan na rek dagan nag fu ñu ko waxee ci usul mooy loo xam ne def ga ak bàyyi ga ñoo yem xàtte kon daal ku ko man booy héene héeneel rek ci sa xol jarut nga di ko wax ci sa làmmeñ bi nga jugee rek na yaa ngay jàppi andi ndox ma teg baaba commencé raxas loxo yee héena ja tàbbi na boo ko nee leen yaa ngi koy waxati tamit ngaa xiir rek waaye loola boo ko héenewutoon mënoo ko def ndax al an niyatu li muy tekki lu ko tan rek mooy alxasdu te ba nga jubee ci loolu rek ya kon jublu nga ca kon njàppangoog na ndox ma laab soppeekuwut ci xeet ci caf nga ci couleur kon yooyu nga bàyyi ko ci xel moo tax am na beneen xadis boo xam ne sax ku jàpp ba nga raxasee loxo rek mbooleem bàkkaar yoo defoon ca loxo ba dafay wadd àndaaleeg toqi toqi ndox ma nga gàllax ndiku loo waxoon lu waxuwut mu root ànd ak ndox ma nga sorox ndiku loo foonoon lu foonuwut mu root ànd ak ndox ma nga sëlmu loo xooloon ki sa bëri lu xooluwut mu wadda ànd ak ndox ma nga raxas loxo noona nga ma saa bopp noona nga koro koroy nopp loo déglu woon nga raxas say tànk loo doxoon moo tax boo demee ci ulamaaw yi dañuy wax ne njàpp taabud la ñenn ngeen ne déedéet du taabud taabud mooy bépp jaamu yàlla guñ la sant te xamuloo xilla ba ndax yàlla dañ koy jaamu ci luñ xam dañ ko jaamu ci lu ñu xamut waaye nag bu ñu waxee nag lu dul taxabut mooy loo xam ne lañ la digal xel la ba xam nga lu tax cosaan la ñu digal la ko ñu ne duhu taxabut daal mooy ne aadama moo waral ñuy jàpp yàlla nga ko jaarale ci moom bi ko yàlla teree garab ga mu dem baroonu garab ga dugal loxo ba ne ma ngay dagg moom loxo booba mu dugaloon moo waral raxas loxo fóon gim ko fóon moo waral sorox ndiku mos gim ko mos moo waral gàllax ndiku bët yam ko doon xoolee bañ koy dagg moo waral sëlmu maanaam bopp booba xob ya tiimoon moo waral masaa bopp ba mu koy dagg yëngatu xob yaag moo moo waral korokoroy nopp tànk yam doxee woon jëm ca moo waral raxas tànk ñi wax ne njàpp duhul temps but lii foofa lañ ne fa la ba commencé moo waral nag lu ci mën a xam daal njàpp mbooleem xeet ya ñu jiitu woon daan nañ ko def yonentu yàlla Adama daana jàpp yonentu yàlla Noox daana jàpp yonentu yàlla Ibrahima ak yonentu yàlla Muusa ba ci Sayyiduna Isa daanañ jàpp ñoom kay lañ xamutoon mooy tiim ku ci xam ngàntal jàpp ngay xaar rek ba mën a jàpp booy fay sa julli julli yaa xam ndax ñoom seen julli bariwutoon ñaari rakka suba ñaari rakka ngoon rek waaye tusubaar tàkkusaan timis gee di juróomi julli di juróomi waxtu ñun xeetu sayduna muhammad dong ñoo ko am moo tax ba yonantu bi gàddoo juróomi julli bëgg a jéggi Iisaa wala bëgg a jéggi yonantu yàlla Muusaa te juróom-benneeli asamaan te boo ko jëlee comme ca kaw la déparé mooy ñaareel foofa boo déparé ci suuf juróom-benneel lay doon mu ne ko lii ëpp na sa xeet wi xàttanuñ ko woon sama xeet wi di banu Israël moo leen ëppoon doole te julli yañ leen joxoon ñaar rakka ba ñaar rakka ngoon sax dafa tëwoon kon demal nga wàññi luwaat ko yonent bi ne ko kuñ joxoon juróom fukk julli ngay wàññi lu ba mu des juróom xeres naa di jàkkaarloog sama borom di wàññi moo tax yonent bi daan toog ba ci kanam mu ne rahimallahu Moussa yàlla na yàlla yërëm Moussa moom de ku ko gën a xam sama xeet wi xamut moo tax xam nga juróomi julli yi ñoom di woon du bëri du sàkk du ñàkk sax ñu bari ñu wax ne su sañoon sax Moussa gën a wàññilu na yonentu waroon naa wàññi waxaat ba mu gën a tutt ñàkk ñu wax loola waaye nag wàññiwuñ ca dara coono ba rek wàññi waaye payoor ba wàññiwuñ ko ndax juróomi julli la ku ko julli ñi fay la payoor ak juróom fukki julli man jaa bil xasanati fa lahu asru amsaaliha tamaa yu baddalu xawlu ladaya kon wàññiwuñ ca dara coono ba rek lañ wàññi kon xeet yi yëpp daanañ julli daanañ jàpp waaye xamuñu woon tiim tiim moom ñun xeetu sayduna muhammad dong ñoo ko jagoo waaye xeet ya jiitu woon xamuñu woon tiim comme ni nga xamee ne ñun xeet wi dong ñoo jagoo julli jumaa xeet ya ñu jiitoon xamuñu woon jumaa comme ni nga xamee ne xeet ya ñu jiitu woon lu musiba rëy rëy xamuñu woon baatab inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna kooku ñun xeetu sayduna muhammad dong ñoo ko xam xeet ya ñu jiitu woon daanu valable ngay mën a julli ci sa bureau wala ci sa tool wala ci sa kër jàkka ja rek ñun nag yonentu bi nee na ju'ilat lil ardu dan defal nañ ma suuf lépp muy jàkka foo ci jullee rek foofa tabaarakallaahu laab na jàkkaay yàlla la kon loolu xeetu yonentu bi ñoo ko jagoo dara taxul yàlla may ñu ko nag mooy barkeeb sayyiduna muhammad moo tax yàlla bëril nuñ koy jaamoo ngir bëgg ñi bëri ay jaamu yuñ mën a xam ëllëg ca moom ñee nag ñoom dañoo néewoon lu ñuy jaamoo moo tax ñoom bëri woon aw yiw comme niñ ko barilee xeetu yonantu bi rek ñoo jagoo tamit asaka joo génnee ñu ne la jox ko sa mbokk nga jox ko ko man yàlla ma fay loolu yonantu bi rek koo xam yeneen xeet yi ñu jiitoon ku mos a génnee dañ koy teg ci bayaal bu safara ñëwee lakk ko wala ngelaw ñëw yëkkati ko muy aw niir nga yëg ne sa asaka ja yàlla nangu na ko moo tax mu ne inna laa ahida ilayna alla numina li rasulin xatta yaatiyana bi qurbaanin taakuluhu naar kon loolu ñun ñoo ko jagoo waaye ñu jiitu woon woon amuñu ko kon li kafaara bàkkaar daal la ca jiitu yow mi may déglu mooy njàpp saa yooy jàppati maa ngi lay ñaan na sa njàpp li mat lum sedd sedd raxasal cër ya ba mat sëkk nga jël ci sa temps bu ca tayal bu ca tayyi bu ca toqi bu ca yàkkamti waaye xam naa lu nit mën a mën a jàpp nag soo fekkee woon njàppal xalifa bu tedd bële yal na yàlla yokk leeram Mawlaay Alxaaji Omar Ñaas da nga mujj xeeb tabaarakallaahu sa njàpp li bu taloon sat la di jàpp man ngaa dem marché duggi fa soo amul sens ba ñëw dellu si fekk ma ngay jàpp yàkkamtiwut ca daara dana xallil tànk dana xallil maanaam baaraami loxo ya ba mat sëkk xallil tànk ya seet maanaam xóot-xóot yaag toppatu ko lépp du ca bàyyi dara moo tax moom ak waajaayam waajaay wu yàgg-yàgg lay doon te loola lépp li ko waral mooy jox diine ji rek gëddëm li ko waral yëpp mooy bëgg yàlla tabaarakallaahu di ko jaamu ci sellal di ko jaamu timit ci teey waaye njàpp loo xam ne borom përëx përëx boo ko gisee da ngay foog ne sax day raggu ah, loola tamit jar naa bàyyi xel de waaye xam nga sonn ci dara ba pare te baaxut loola baaxut te am na ci xeeti jaamu yàlla yoo xam ne boo ko defee te defee ko na ko yàlla bëggee dañ koy leem rek comme nañuy leemee yëre bu ràpp rek. sànniwaat la ko ci sa xar bi waaye maa ngi lay ñaan soo jàppatee ñaa ba jàpp njàpp la sell loo yàkkamti yàkkamti muy waxtu dagan ak naafi la jullil ñaari rakkaa loo ca jàng baax na gannaaw faatiha te loolu lu xam solo la danaa ci yegg si maqaama bi may bilaal ba taxoon yonent bi wax ko wax ju rëy jam ko waxoon te loolu dañ ci yegg si ci kanam euh, ci kanam kon nga yëg kon foo jàppatee njàpp la tooy xeeb muy waxtu naafi la mooy foo xam ne jant ba fenkut jant ba soxut naka noonu bu soxee tamit julleegoo julleegoo timis dañ koy sib na fekk nga jul timis ba pare bu jant ba fenkee xaaral ba mu yëkkatiku ba yoor yoor bay dugg nga door a mën a la su fekkee waxtu wi nga jàpp nag duhut waxtu naafila na nga ko remplacer subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar benn bu ne nga wax ko ñeenti yoon su boobaa da nga xam yoolab ku dawal ñaari rakkaxa kon jàpp rek mu sell bala ngaa toog mbaa ngay wax mbaa ngay def dara nga kàbbaar julli ñaari rakkaa yool bu rëy nga ca ku ko def ñu jéggal la say bàkkaar yi jiitu woon Umar ibnul moo solo hadis bi muslim indi na ko ah, bi ki tegu tamit gannaaw bi nga jàppee ba pare loo yàkkamti yàkkamti yëkkatil sa baaraam ab sànneekaay bii ngay taayaa nga yëkkati sa bët yi téen ci asamaan noo jublu baax na moo xam penkook xarfook noo def yaa xam waaye jublul asamaan rek yëkkati sa bët yi soo ko yëkkatee nga yëkkati sa baaraam bi rek su ko defee nag euh, nga ñaan ñaan gi allahuma ijaal nii min altawaabin wa jaal nii min almutatahirin wa jaal min ibadika alsaalihin la alladina laa xawfun alayhim wala hum yaxsanuun subhanaka allahuma la sharika laka astaghfiruka wa atubu ilayka yonentu bi nee na képp ku njàpp njàpp lu sell yëkkati sa bët yii xool asamaan yëkkati waale sa baaraam bi wax lii gannaaw bi nga waxee ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu door a wax ne allahuma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin am na riwaay boo xam ne foofu rekk la sax boo ko waxee yàlla jéggal la sa bàkkaar yi nga xam ne moom nga jiitu woon ba tax na boo ko waxee dañ lay hubbil juróom ñetti bunti aljana yépp ne la bu la ci neex duggal kon hubbi xaale nañ ko mu toog di la xaar bu yowmal xiyaamee rek yow moo xam ne saa yoo jàppee wax lii ñu ne la juróom-ñetti bunti aljana yaa ngi ni porte yaa ngi nii fu la ci neex rek entrée duggal nga jaaree foofa kon njàpp gannaaw bi mu sellee avant ngay julli ñaari rakkaaya sa bët yi xool asamaan rek nga yëkkati sa baaraam boo yëkkatee baaraam baax na boo ko yëkkatiwul sa baax na waaye fexeel ba wax rek ne ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahuma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahirin waj'alni min ibadika as-salihin boo ca xemoon baax na bu la neexee nga yokku ci alladina laa xawfun alayhim wala hum yaxsanuun subhanaka ashhadu an laa ilaha illa anta wahdaka la sharika laka astaghfiruka wa atubu ilayka lii nga door a xem foofa soo ko defee ñu hubbi la juróom-ñetti bunti aljana yépp mu hubbee ko xaala di la xaar bu yowmal xiyaamee nga dekki ñu ne la juróom-ñetti yaa ngi fu la ci neex maanaam duggeexal kon loolu day kafaara bàkkaar euh, bi ki tegu di ñetteel ba timit nag mooy taqoo njàpp rek ab julit soo bëggee ñu lay jégal sa bàkkaar foo tojlee rek demal gaaw nga jàppi xat waaye jullit wurul toog taxandut ak njàpp toog taxandoog jàpp danse bu rëy rëy la ndax saa yoo toogee taxandoog njàpp ku la gémmañu jàpp la ku la kortu jàpp la ku la liggéey jàpp la ku yëkkati lu bon jëmee ko gi sa kaw mu njabar la jàpp la waaye ku takkoog njàpp ku la mën a jàpp xamatut ku la liggéey du jàpp ku la njabar du jàpp ku la gémmañu du jàpp lu la nit gémmañu lu mu rëy rëy gémmañ nga yàlla da koy soppi bayre ku la def lu bon tamit du du dal ci sa kaw day mel ni miir rek boo sànni bal mu delloo siwaat ca ko sànni woon moo tax charia bëgg ngay takkoo njàpp ba ba nga demee bay tëdd sax nga xam ne nelaw rek a ci des sax demal nga jàpp nga yéene tëdd su ko defee su boobaa yàlla yonentu bi neen yàlla lay booleeg malaaka mu lay jéggalul yàlla ba bër set ne lu tax mu ne ko Euh, li annahu baata taahiran sa jaam bi dafa fanaanoo laab nga tëdd benn wet ba mu yàgg nga wëlbatiku haat yooyu yëpp yàlla ngi la booleeg malaaka mu lay jéggalul yàlla ne ndax da ngaa fanaanoo laab su ko defee feek ba ba nga yeewoo xam nga ne loola yiwu rëy rëy la waaye boo tëddee te fekk jàppuloo te xam nga musiba yu bari ci ñu bon ñu xañaan ñi nga xam ne dañuy liggéey doomu aadama yi guddi lañ koy def moo tax sax yonent bi yàlla wax na ko ne muslul min sharri xaasiqin ida waqaba maa ngi muslu ci xayu marax bu demee ba lépp dal su ko defee maam man yeeg njabarkat yeek ñu soxor ñeeg kortukat yeeg kenn ku ci nekk commencé jug fas a fas ba mu dëgër nga mujj tafli su boobaa yow mi tëddee njàpp fanaanoo ko yàlla dana la musal ci njabarkat yooyu kortukat yooyu ñu bon ñooñu ñëpp bal la boo xam ne bu buñ dóor ci miir la buñ ko sànniwaatee rek mu dal la mu mu delluwaat ke ñoom te gis nga takkoo njàpp lu baax la te njàpp loola dara mënu koo toj nelaw du ko toj ngalawal du ko toj dem ba ci kanam nga xeewu dem tuur ndox du ko toj dem ba ci kanam nga dem kabine gi du ko toj la koy toj daal mooy ànd ak sa soxna kese moo ko mën a toj te boo ànd ak sa soxna tamit bul fanaanoog janaba ji moo gën a nekk danse soo demee ba mën noo ñàkk fanaanoog janaba ji jàppal nga yéene pour xoyafal janaba jooje mu xaw laa may sécurité waaye nga yore janaba sanguwoo jàppaatoo te du noona rek su boobaa yaa ngi mel ni kuy dem xare te yóbbuwuloo ngànnaay kon mbokki jullit ñi ab jullit dafa war a fonk njàpp yow jigéen gi may déglu soo yeewoo ba war a dem ca marché ba julli nga suba nga yëg ne sa njàpp toj na bala ngaa dem marché marché ku ne nga fa marché lu nee nga fa jàppal njàpp lu tooy xepp su ko defee yor sa paan bi di jéggalu yàllaak di ko tudd di jullu ci yonantu bi départ bor sa doom boo yóbbuwaale yaa xam nga dem ca marché ba yow may xëy di liggéeyi tamit àndal ak sa njàpp lu tooy xepp boole ko di tudd yàllaak ak sàbbaal loo xam ci lu baax jàng ko yow mi nekk ca caawa ga na nga jàpp ba mu sell nga door a jiital say nag yàlla mën na laa dimbalee lépp luy li ñooy sàcc ñay yàq ak yépp mën nañ yàlla mën na laa musal ci sa nag yooya yow muy dem tool noona yow karaat bi noona ab jullit dafa war a taqoo njàpp fu mën a nekk bu sa njàpp tojee timit rek gaawal ca saa sa nga dem jàppiwaat waaye ab jullit warul toog ñu ne waxtu jot na ayoo boog ngi taxawal nga ne maye ma dem jàppi loola gàcce la da ngaa war a préparer balaa waxtu waa taxaw fekk la ca ndax kat njàpp njëkk waxtu dañ koo sopp xaar ba waxtu wa jot ngay door di jàpp farata la waaye luñ sopp loola moo ëpp doole farata jooja kon nañ takkoo njàpp ndax lu ñu dàqee du ñu mën a jàpp lépp lu ñuy def ci lu bon jëmee ko ci ñun dañ ca mën a mucc kon njàpp lu xama-xam solo la ci ab jullit di ko takkoo waxtu wu ne rawatina sax ba mu demee tamit ba ma ngay tëdd tamit tréewut maanaam war nay jàpp sayyidatuna euh, Fatima di doomi yonent bi bi mu tawatee yonent bi ay coono yu bari jafe-jafe yonent bi joxoon na ko ñaan gu xam-xam njariñ bu nekk war koo def ne ko boo dematee bay tëdd jàppal nga fekk yaa ngi laab nga wax allahu akbar allahu akbar fanweeri yoon ak ñeent su ko defee nga ne walhamdulillah nga wax ko alhamdulillah fanweeri yoon ak ñett subhanallah fanweeri yoon ak ñett su ko defee allahu akbar ya rek mooy fanweer ak ñeent waaye alhamdulilah ja subhanallah ja kooku fanweer yoon ak ñett lay doon boo ko boolee lépp mu jox la téeméeri yoon mu ne ko lii soo ko defee yàlla dana la jox yiw woo xam ne du ko jox kenn lu dul ku def li nga def moo tax kon jullit bu ne bala ngaa tëdd tii jàppal nga tëdd wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar fanweeri yoon ak ñeent su paree nga ne subhanallah fanweeri yoon ak ñett walhamdulillah fanweeri yoon ak ñett nga door a tëdd booy nelaw nga nelaw su boobaa yàlla dina la bindal xiw woo xam ne xamul kenn ku mën a xam xiwu toll noona lu dul mu def li nga def lii yonent bi moo ko joxoon doomam ja na Fatima bi mu nekkee ci ay jafe-jafe ñëw di ko tawat naqaree kër gaag jafe-jafe yam doon dund yonent bi ne ko takkooxal lii rek kon loola ab julit war na koo def te gis nga julit saa yoo tojlee rek nga jàpp may na bilaal maqaama bu rëy rëy te maa ngi la ko doon junji bilaal yonentu da ko mos a ne ko waaw bilaal damaa dégg sa dàll yi nga sol muy sa karbat yi ma nga yëngatu ci sama kanam ci aljana lu la ko may bilaal ne ko musumaa jàpp lu dul ba julli naa musumaa tojle lu dul ba jàpp naa fu ma mos a tojlee rek dem naa jàppi su may jàpp bala maa def dara muy waxtu daganam la ma julli ñaari rakkaa moo tax heure boo ma déggee may noddu ba may noddu maa ngi ànd ak njàpp su may pare tamit noddu ga rek du maanaam dugg ca naafila ga soo ñëwee nga jiitañu tamit julli ga mu ne ko waaw kay yow kay moo tax kay ñaar yii moo tax yàlla may la ñaari yi maqaama bu rëy bu màgg bi loola euh, boo demee ca euh, sayu ibnu xusaymata wax na ko jëlee xadis ba ci abdullah ibnu data mu jëlee ko ca baayam muy hadis boo xam ne bu wér a wér a bi xoo bilaal ba mu ñëwoon ko yaa bilaalu bi ma sabaqtanii ilal janna noo def ba jiitu ma ci xaljaana ma war a jiitu ñëpp xaljaana yow ma dégg la sama kanam nga nekk ca biir xaljaana bilaal ne ko fa qaala bilaal yaa rasulallahi maa adantu qattu illa salaytu rakaatayni wala asaabanii xadasun qattu illa wa tawaddatu indahu fa qaal rasulullahi salaa salaam ah kon ci loolu nga amee loolu yonent bi ne kon li haada ay min ajli haadayni l amrayni rafa allahu darajataka fil janna xoolal loolu xam nga ne loolu kon lu rëy rëy la kon ab jullit su bëggee xam li bilaal xam di di suñ mbokkam nit ku ñuul ku tedd du ñàkk sax benn bis dinaa la waxtaanal ci bilaal ak jaar jaaraam ak fi mu jaar ak ak euh, lépp am na benn waa joo xam ne bind na cëb téere boo xam ne bilaal rek la jagleel téere ba téere bu tumuranke la ci wàllu jaar-jaaru bilaal ndax waaye boo seetee ci yeneen histoire téere yi daanaka bilaal duñu wax ci moom lu bëri euh, yu bëree bëri boo demee ci isaaba euh, maanaam al isaabatu euh, téere la bu matale waaye li mu wax ci bilaal bëriwut naka noonu tamit yeneen yu bëree bari duñu xuus ci bilaal benn nit laa ci gis mu bind ci téere boo xam ne benn saxaabi yu nekku ci téere bi Bilaal rek la ko jagleel du ñàkk bu yoon jeexul dox si ci kanam du jeex comme suñ mbokkam nit ku ñuul la ñuy wax ci moom lu rëy rëy te yonantu bi ku ko fonkoon la moo doon noddu katam ba kon nga xam ne nit ñi ñuul yàgg nañoo jege yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga noddu ak ilimaan ak bi ñoo taxoo te Bilaal moo doon noddu moo doon liqaam di ko defal Sayyiduna Muhammad kon euh, liy kafaara bàkkaara ngoog am na solo bu baax a baax a baax. soo jàppatee muy waxtu dagan ak naafila julil ñaar rakka su fekkee duwul waxtu dagan ak naafila waxal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko benn bu ne ñeenti yoon bu la neexee sax nga doole ci wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim ñoom juróom ñoom juróomi baat yooyu di juróomi jumla yooyu benn bu ne nga def ko muy ñeenti yoon yàlla dana la bindal yoolab ku dawal ñaari rakka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi al aliyil azimi loola saa yoo ñëwee ci jàkk ci waxtu boo xam ne duñ fa naafila lii nga war a wax door a toog boo demee ca aadaabul masjid bu seydil haaji malik wax na ko ca waaye mi ngi ko jëlee ci sayihu muslim ak sunanu abi daawuda ak imaamu nasaayi ibnu majaha sayihu ibnu abi xusayma yëpp indi nañ riwaaya boobu muy loo xam ne lu ama am solo la kon njàppangoog day kafaara bàkkaar man tawaddaa fa ahsana al wudua summa salla rakaatayni laa yasahu fihima xufira lahu ma taqaddama bi danbihi kon yooyu dafa lay kafaaral sa bàkkaar yi nga xam ne ñoo jiitu woon rekk la wax waaye yu mujj ya bokkut ci kon yi ma la waxagum ku ko def matal jàpp njàpp la tooy xepp mat sëkk nga yëkk ñi jéggal say bàkkaar yu njëkk ya nga yëkkati say bët xool ko ci asamaan ne ashhadu an laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahuma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin am na riwaaya bu ko doole sax ne allahuma qaribni ila aljanna wa ba'idni min an-naar yàlla nga ma jegeel safara yàlla nga ma jegeel aljanna soril ma safara ñu ubbi la juróom-ñetti buntu yëpp bu ko defee bu ëllëgee bu la ci neex nga duggee boo ca yokkul loolu tamit baax na a riwaayaatu taxtalifu naka noonu gannaaw bi nga xamee ne tojle foo tojleetee jàppal foo jàppaatee balaa dara xew waxtu naa fi la jullil ñaari rakkaxa nga door a def la ngay def lii ku ko taqoo sa bàkkaar ya jiitu woon yëpp ñu jéggal la ko kon nga xam ne kon dëgg-dëgg ab jullit war naa sonne lii tax ñu jéggal ko ay bàkkaaram te loolu lu ko nit jëndee tabaarakallaahu timit jar na ko bokk na ci lii kafaara bàkkaar nettali noddu loo bari bari bari wax bëgg téléphoné gi ci xaju soo déggatee noddukat ba kay wax ak yow ne ko may ma ndax kuy wax ba kàddu yàlla yëkkatiku xooteeb yàlla yëkkatiku nga mën a tëral sa woote mën a tëral tamit sa wax waaye kuy def ñuy noddi ngay mbel-mbel yi wax di tartar yi wax soo lëgee boo demee ba war a sukkuraat war a dee doo wax soxla fa nga war a bàttalee naan nangam ak nangam doo ci mën a wax dara te xam nga foofa ku ne soxla na loola kon ku bëgg boo tolloo foofa mën a wax soxla mën a wax luy jariñ baatab laa ilaha illallah mu ngi ci sa làmmeñ soo déggatee laa ilaha illallah ke noddu ga noppil noppil ba ba noddu gi daanu nga doora looy wax nga door di ko wax boo defee nag waajaw di noddu lu mu wax rek nga wax ko bu ne xayaala salaati nga ne laa hawla wala quwata mu ne xayaala falaahi xam nga benn bu dana ko wax ñaari yoon muy ñeent yow tim nga ne laa hawla wala quwwata rek nga wax ko ñeenti yoon su ko defee mu continuer noddam nga nga mottali soo ko defee yàlla jéggal la sa bakar yi nga xamee ne nii moo jiitu woon kon nettali noddu lu ama am solo la yonentu bee ko wax de man samia al adana fa qaala mithla ma yaqulu al muaddinu summa salla ala alayya summa qaala allahuma rabbi hadihi da'wati tamma wa salati al aati sayidana muhammadin al wasilata wal fadila wa buathu llahu maqaam mahmud alladi waadtuhu innaka laa tuxlifu l miaad kon ku wax lii yonent bi ne ne bu yowmal qiyaama man maa lay ràmm xalat shafaati yowmal qiyaama xam nga kon loolu xam na njariñ kon ku déggati nit koy noddu lu mu wax wax ko bu ne hayya ala salaati mbaa mu ne hayya ala falaahi nga ne laa hawla wala quwwata nga wax laa hawla wala quwwata ñeenti yoon su ko defee ci loolu moo may nga mën a mot. mottali noddu ga ba mu jeex soo mottalee ba mu jeex nag mën ngaa wax ne allahuma rabbi hadihi daawati taama wa salaati alqaima aati sayidana muhammadin alwasilata walfadila wa darajata rafiata wa buaathu lahuma maqaman mahmudan alladi waadtahu innaka laa tuxlifu lmiaad soo ko waxee ñi jéggala sa bàkkaar yu njëkk ya bu yowmal qiyaamee nga bokk ci kotaahu yonantu bi ñamuy ramm dugal leen hal jana bila iqaabin wala xisaabin kon nettali noddu lu ama am njariñ la man nga nag noddu goo dégg tusubaar waaye buñ ne noddu rek nettali noddu nag boo demee ci mu dawana dafa ne dafa ne nettali noddu rek mais farañ fànce wut waaye lañ koy mën a déggee nag mooy noddu yay ko jug waxtu noddu yay ko jug waxtu boo ko nettalee benn rek yóbbu yóbbuwaale na ya ca des yépp ndax fi ñuy noddu tusubaar yi dafa bëri te ñu ci bëri dañuy xaw ay ay minute kon boo ca dégloo ba nga njëkk a dégg nga nattali ko rek euh, wala bam la jekku fekk nga mën ko nettali rek dugal na ya ca des ca tusubaar yépp ca noddam ya tàkkusaan gi ñëw nga defati ko timis ñëw nga ñëwati ko defati ko suñ ko waxee tamit nag noddi farata yi lañ cay namm nodd gi nga xam ne waaja dafay euh, euh, nodd nodd gu njëkk ngir xeete ñu ne yooya bokkut ca nodd yi farata yi lañ ca namm waaye nodd ak salaatu xayru mina naw mi googa moom moom lañ ca moom lañ ca gën moom lañ bëgg boole ko tusubaar jaag tàkkusaan jaag timis gaag gexe ga kon nettali noddangoog ak yool bu rëy bi nga xam ne nekk na ca ak njëriñ lu màgg li nga xam ne tamit nettali noddu am na ko ku nekk ci ñun war koo hittewoo ba looy waxati boo déggee noddu noppil euh, waaye nag booy nettali noddu bu la neexee waaja commencé noddu ga rek yow nga far jiitu ko ki nettali ga doo xaar naan lu mu wax nga wax ko dagan na mais dagan na moom mu commencé yow nga far jiitu ko boo demee ci xalil wax na ko ca sarxa ba nee na man ngay nettali noddu ta fekk yow yaa jiitu waaja ma ngay noddu de waaye nga xam la mu war a wax ci kanamam yëpp far yow nga jiitu ko ca toog di ko xaar bu daanee rek na nga ne allahuma rabbi hadihi daawati tamma wa salaati al qaima kon nettali noddu ñett man na bu la neexee nga xaar ba mu noddu ba daanee nga nga jaar fam jaar boobaa nag nga remplacer xay ala salaati ya laa hawla wala quwata ya nga wax ko ñeenti yoon su la neexee lu mu wax rek nga wax ko bu nee xay ala salaati nga ne laa hawla wala quwata bu la neexee mu tàmbali rek tamit yow nga far jiitu ko la mu war a wax yépp far nga wax wax ko toog di ko xaar kon jiital ko man na jiitle ak moom man na mu jiitu la tamit man na yépp loo ko def maanaam baax na kon nettali noddoo ngoog ak njëriñ yu rëy yi nga xam ne làmboo na ko xam naa yi kafaara bàkkaar tabaarakallaahu waxagum naa la ci ñeent waxagum naa la ci boo ma toppee suba ci waxtu wi nag ma sof ak yow li ma sosoon ak yow ci nettali noddoog njëriñ yu rëy yi nga xam ne làmboo na ko ak yeneen yi tegu ci yi kafaara bàkkaar bu baax a baax ñun ñëpp ñu xittewoo ci góor góorgóorlu ci topp ko bu baax a baax a baax su boobaa ndax kat bàkkaar yi dafa bëri lool feebar yu bon yeeg fan yu gàtt yeeg yaakaar yu tas yeeg jàngoro yu doy waar yeeg xalal ju bëri te mënul dara xam ne jamono ji loo xam ne dara jeexul waaye dara doyul lépp bàkkaar yu bëri yi moo ko yóbboo ñu ko yóbboo su boobaa kon nag nañu hittihoo loo xam ne bu ñu ko defee rek yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar ndax buur bu baax la bu bëri yërmandi la suñ ko dun tooñ di ko jéggalu mu jëlee ñu fi indi ko koy tooñ di ko jéggalu loolu yonentu bi wax na ko sallallahu alayhi wa sallama te moo bañ ba tuddee boppam ne innahu huwal barur rahim nañ góorgóorlu ci luy kafaara bàkkaar yu ne rek taxawee ko topp ma ëllëg ci waxtu yi inchaa allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu